ارتجى قلبي من خيال قد سرى قد سرى قد سرى وسباني قد جفا طيف الكرى هجى قلبي من خيال قد سرى قد سرى kon kon mbooloo mi xalifa bi nee na mi ngi leen di nuyu nee mi ngi leen di dalal seen gan gii nee na du ganam moom yéen seen gat la nee na bu dul konteeg wala وقصر الآدي دعاء مباركا بشير إمام بشير سيدنا عثمان عثمان نين سيدنا عثمان ولا بيت رضوان كان له كرامة يبايعه أن أصل أبيبي وصوله Ousmane. nee na Ousmane. am na teraanga joo xam ni. am na teraanga joo xam ni. yàlla ko ko nee na yàlla moo ko ko jagleel. ndax Ousmane. ku bari woon jukka la. nee na ku bari woon jukka la. waaye. waaye. Seydina Ababacar. Seydina Ababacar. nan dem ci ji. ni ko nan dem ci waa ji. ku baax la kat. nan dem. mu ni nan dem ma seet ko. nee na boobu mu demee mu gëm. am njëriñ nag. nee na am njëriñ nag. xam nga ku yor paquet suukar. nee na ku yor paquet suukar. di di jar téeméer. nga taxaw ci marché bi di ko jaay. nga taxaw ci marché bi di ko jaay. ni junni laa koy jaayee. ni junni laa koy jaayee. ku mën jënd ku mënul bàyyi. ku mën jënd ku mënul bàyyi. dana jarle. nee na ndax kooku dana jarle. moom nee na gis na koy jënd. nee na gis na koy jënd. dana jarle ndax gis na ku koy nee dana jarle ndax gis na ku koy jënd. nee na loolu Ousmane rek moo ko man ku koy jënd. nee na kan moo koy jënd. yàlla yàlla. man jaa bi asanati. fa la asru am saaliha ku ku ma defal benn ma fay ko fukk. nee na mu ni ku ma defal benn ma fay la fukk. du junne ngoog. nee na du junne ngoog. nee na nee kooku lay jaay. nee na kooka lay jaay. Ousmane dafa doon jaayante ak yàlla. nee na doon jaayante ak yàlla. nee na yont yàlla Muhammad dugg ci biir. sallallahu alayhi wa sallam. waaye. waaye. toog na di ñaanal nee na toog na di ñaanal Ousmane. di ñaanal Ousmane. ba ñu sax. ba ñu defee ni sax. Ousmane rek fi nekk. dong moo fi nekk. waaye. Ousmane amul nee na Ousmane amul lay. réew mu ne war na ko defar. réew mu mu nekk da war a defar. dëkk bu mu ne war na ko defar. dëkk bu mu ne war a defar. njaboot gu mu tàbbi war na ko defar. Ousmane du du coomo de. nee na Ousmane du coomo de. nee na ku ko yàlla may. yàlla joxatu la coomo. nee na yàlla ne defatu du coomo. nee na Ousmane du coomo. Hmm? nee na Ousmane du coomo. maam Seydi Aji Malick ko. nee na maam Seydi Aji moo ko wax. Hmm? ndax bu ñu nee dañuy dem jihaati jihaati. nee na bu ñu dañuy jihaati. ñu ñu woo mbooloo mi ñëpp nee na woo mbooloo mi ñëpp ñëw. kenn ku ne yëkkati mbaggam ak përëgam. nee na kenn ku ne yëkkati mbaggam ak përëgam. ak jaaseem ak jaaseem. ni danaa def lii danaa def lii danaa ah, def danaa def lii. te kenn Ousmane ko. te Ousmane fekkewu ko. ba ñu noppi ba ñu noppi. yonent bi rek rek. moo jénnil. moo génnee loxoom ni loxo Ousmane. te demul xeexi. neen te demul xeexi. te demoon badal rek. te ku demoon badal rek. am nga ngërëm. nee na am nga ngërëm. am nga ngëreel am nga ngëreel am nga ngërëm. te moom demul nee na te usmaan demul woon. waaye moo leen wante nee na moo leen ëppale. nee na Ousmane amul lay. lu jaxasoo lu ne. war na ko mën a defar war na ko mën a defar. <laughs> nee na Ousmane amul lay dafa war a baax te am wërsëg te di ko joxe nee na mu ko war a joxe nag nee na Ousmane dafa doon joxe foo mu war a joxe di wax jàmm wante du neex ñu bare nee na sëñ Abdoul Aziz nee na maag yow rek ñoo fi nekk. xalif bu ne ñu ànd ak moom. wante moom Ababacar la tudd. Abdoul la tudd. man na moom Ousmane la tudd. nee na danaa ko rawee benn garat. Ah, nee na mu raw ma rek xanaa ndax si. nee na Ousmane amul lay. nee na Ousmane Sonko. nee na li ñuy wax. wax ne ci la bokk. ñu wax ne ci la bokk. ñu koy wax ñu koy wax. bu amul woon bu amul woon. xel du ca dem xel du ca dem. waaye fii nu ne. wante fii ne. këram la këram la. daf fi war a ñëw daf war a ñëw. bu gàmmu xewul waaye bu wante bu gàmmu xewee. dafa war toog dafa war toog yor rajo bi di wax. ñëpp di na ñëpp di ko déglu. nee na loolu yow sàggan nga ci. nee ci xeex ak moom léegi. neen tax waat di jël rajo bi di wax nee na ci la bokk ku ci bokkul sax dana jël rajo bi ku ci bokkul sax dana jël rajo yow nag yow nag loo ciy nekk. damay bañ a wax ñu xolli ma ci saasi. wax ñu xolli la fal ma ci saasi. xolli. xolli Ousmane fal Ousmane déedéet. <laughs> bu ñu xollee Ousmane fal Ousmane kooku du xolliku. Mhm. a naan dañu lay fal fal Moussa wala nee na daal bu nu follee Ousmane fal Ousmane. nee na loolu du folliku. ndax lañ fi doon seet rek la nee na lañ doon seet rek la ñuy gis. nee na loolu rek la ñuy waaye. Ah, fii day moom nag maam Seydi Aji Rawaan. maam Seydi Aji Rawaan. ka doon ñëw. ka fi doon ci réew mi. di ko ñaanloo la Blaise Diagne. nee na du woon jullit. wala ka ca des nee na kenn ki moo ñëw ca ca xotti ko tool yi ci gannaaw nee na booba fii amagul woon ni ka tubaab bi yàq na réew mi dama ko bëgg a defar nee na mu woo baayam maam Alaaji Lamin mun ko xam nga ki fi woon na mun ko déedéet nee na mun ko dama fa bëgg a jot réew mi nee na Bachir nee na ñaanal na ko. ba mu falu ba mu falu. Senghor Senghor. ñëw ñëw na ko fii moom mii fi la ko fekk. nii dafa bëgg jot réew mi. nee na moom fi la ko fekk. waaye neewoon na. wante neewoon na. bu fekkee du. bu fekkee du. yërëm jaam yàlla yi rek. yërëm jaam yàlla rek. yàlla bu ma ko jot yàlla bu ma ko jot. nee na ñu ñaan. nee na mu dem. jot na réew mi léegi nag. jamono ji jamono ji. yàqu na yàqu boo xam ni. Euh, booy te te. te. boo ci bokkul. boo ci bokkul. ñu di la wujjee di la ko dóor rek. ñu la wujjee wujjee di la ko dóor rek. da nga war fexe ba sànq sa bopp. da war fexe ba sànq sa bopp. ba kenn du la ko dóor. ba kenn du ko dóor. ndax. ndax. yàlla Souleymane. yonte yàlla Souleymane. yonente woon. waaye buur ba nga xam ne dafa nekk te sore ko. buur ba nekk. te sore ko tey jigéen ko tey jigéen. ba mu ko bindee ko leetar ni ko ñëwal. ba mu ni ko ñëwal. waaye booy ñëw na nga nekk julit. wante booy ñëw na nga nekk julit. mu ni lu ci xam gaa yi. mu lu ngeen xam ci loolu gaa yi. gaa yi ñun mën nañu xeex. nee na gaa yi ñu mën nañu xeex. jàmbaar lañu mën nañu ci kaw. mën nañ ca kaw mën nañ ci suuf. mun leen déet. xam nga jigéen la. xam nga jigéen la. bu fekkee yàllaa ko yónni bu fekkee bu nu xeex ak moom. bu fekkee bakkanam rek la. bu fekkee bakkanam rek bakkanam rek la nee na nañ leen dem xeex. moo waral ku dugg ci lu ne nga ci dugg sàkku ci àdduna la nga cay sàkku ci àdduna jamono bu ndaw la nee na kenn du fi matal balay kenn di matal yàlla jël li mu moom ci façon yëpp nag. yow ndax yi ma la jox yëpp man na la ko jox man na ko fop te doo dee mën na ko am am na kay loolu am na xanaa rey la te doo dee amuloo xel amuloo xel waaw amuloo xel an kay bu jëlee xel mi doo amatoo xel lu lay dese dara ah, waaw bu jëlee bu jëlee sa lamine nag. dootoo wax. na buur yàlla dafa yor pexe yoo xam ni. ku mu nattul nga jot ci. nee na dala cay musal. ku mu ku mu nattu nga bokk ci àdduna di yëngatu. nee na dalay sàmmal yooyu. nee na nañ ko yàlla sàmmal. ñi nga xam ne nga xam ne yàlla sant na leen. ñuy sàkk ci àddina yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo wax ni nangay ngay sàkku ci àdduna ba mel na doodee nee na na ngay sàkk àdduna kii ba ni kii li muy wut xanaa moom du dee nee na boo jaamoo yàlla na nga mel na kuy dee suba yal na buur yàlla defal leen jàmm nee na Cheikh Ousmane jërëjëf ba nga ñëwee ci say bokk nee na ñun de ñoo ngi fi lillaahi wa lillaahi xus nee na duñu kenn ñun dañu fi ne ngir yàlla ñu leen fi bàyyil daal jàkk ji julli ci jàkk ji nee na bu cinq nga dem ca kaamil bee jàng ca nee na ñoom loolu rek lañ leen fi bàyyil di ci des nag ndékk ak añ ak reer nee na bàyyil ak yàlla nee na ñoom loolu rek lañ fi nekke kon nee na nga ñëw sa kër ñu bokk ko ñu bokk yëpp am na lépp am na ñëpp am na nee na sabablu rek yàlla na la ko yàlla defal nee na defal leen ko yéen it nee na def jàmm jërë ngeen jëf tubaar fakal la nee na moom bég na lool nee na kontaan na lool nee na xam na ci dara it waaye yàlla nee na santu leen ñu wax lépp nee na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na li ko tax a baax nee na boo ko gisee nee na noppi dafa doon ni moo gën nee na boo ko seetloo nee na lu ci ëpp boo jaaree ci lu ko neex nee du ree nee na dana muuñ nee na boo jaaree lu neexul yàlla nee na daa xam ca kanamam nee na adduna boo ci sabablu na nga ko sabablu ca ci beneen anam bu neex yàlla bu xam ni daa ko mën a ilaay may nga ko layil koo xam ni koo xam ni. da nga defe ni da ni. da ngay toog doo jéem da ngay toog doo jéem dara. loolu yàlla defal rek loolu yàlla defal rek. ñoo ñoo nee na ñooñu ñoo perte. nee na sabablu. nee na na ngeen sabablu. kenn ku ne na sabablu. ñu bokk. abba jërëjëf. Ah, nee na yeex nga ñëw kon. nee na ban dalee ka ba léegi. nee na ñëwagoo fi. nee na abba amagoo jàmbaar. <laughs>